sénégalais yi ñuy voté dégg naa kenn ku naan non ñoom ay parti ay kii téléphonique lañu ñun si xolu sénégalais yi la ñuy dugg cabine téléphonique la ñu. yow ba ngay ñëw assemblée nationale ñu ne prip nga nekk fa naan comprendre ca ca ca ki mbii de di xamuñu looy làkk. si assemblée nationale boo xamante ne ne français onenge huuhu ma ne ñu ne waaw ñun xanaa dañoo tooñ yàlla ñu ngi jóge si si si lu ñuy wax assemblée nationale boo xamante dañu ne assemblée nationale bu niir la ñu dal si lii dugal la si page comédie yi ku ku ku stressé dem liir reetaan xàkkatay tey ngay bëgg a yaayoo doomu jàmbur parce que da ngaa bëgg a meer parce que da bëgg a nekkaat député tax na ngay ñëw si réseaux sociaux naan da ngay Sénégal il faut que ñi ñi xam seen place comme buzz Kounkandé bi jeex na ñi ñi bëgg a jëlaat buzzam parce que genre buzz yooyu moo fi dox waxuma ak ñoom dama ne al toppe yi ñoo xamante ne ne dañuy di kii xam naa ne mën nañu yanu combat bi mais al toppe yooyu parce que bu si ne yaa ngi bëgg ñu teg la place pour nga nekk député ñu teg la benn place pour nga nekk maire ñu teg la benn place pour donc li nga war a wax doo ko wax parce que yaa ngi yoot yaa ngi yoot ku yoot du sëkkët ñooñu waxuma ak ñoom dama ne xalifa Sall Ousmane Sonko Karim Wade yéen lay waxal